dañuy sant suñu boroom bi nga xamante ni may nañu ñun ak ñi ñu àndal te yéen ñi nekk ci presse bi yéen ñi nekk ci presse bi euh, demu leen desu leen gannaaw ñu jàpp ne ak jàngoro ji law ci dëkk bi mbas mi toll na foo xam ne war nañu taxaw def seet seetal euh, seet li nga xam ni dégg nañ ko ci centre national de transfusion sanguine ci deret bi commencé ñàkk ci yenn structure de santé yi ci ndakaaru ak réew mi yëpp nag jëm ci mbas mi jëm ci ñi accidenté ci booru tali bi jëm ci suñu soxna yi nga xamante ni ñu ngi ñàkk deret léeg-léeg bu ñuy joxe bu ñuy bu ñuy euh, deret manqué leen ndax hémorragie bi ba mardi kaali ñu jàpp ne war nañu mën dajale suñu ay gune pour ñu may ay dara euh, ci suba ba léegi nag sant suñu borom euh, mbolo mi machallah takuna muy civil di soldat soldat yi nak ñom dama leen di jox mention spéciale tambalé ko ci seen njit parce que ñom ñoo leen digël jital leen suba teel ñu ñëw fi def fi regroupement bu am solo animation bu am solo euh ni soldat di def rek fecc nañ fi way nañ fi wane nañu jàmbaarte waye wax nañ leen ni ko xamni dafa dañ ko tàggat ci joxe bakanam pour ñun ñu mucc pour réew mi mucc dafa joxe bakanam pour ñun ñu mëna nelaw ba yandor té mom du xam lu mu nekk dafay joxe bakanam ngir bu xëy di ñibbi di xëy di liggéey du xam ndax dana dellu ci ba gis njabootam ci jamm donc ñoñu dañ leen war ñukkal té bés yu melni nii na ci bés yo xamni dañ leen wara a féliciter la nga xam ni moo ci top moy centre national de transfusion sanguine dafa alerté te yàgg di def ma japp né kén ci ñun warul noppalu ndax boy xaar finalu ASC wala final de zone taxaw wala meeting wala ñun le président day ñew tel gox nga commencé mobiliser pour wane sa bop naam baax na waaye dafa gën fexé ba jamono bo xamni ne sa réew soxla na la ci yo xamni euh, yu demee nii la té day am njëriñ nga woté nit ñi ñëw wuy si la té lool am nañ ko bu baaxa baaxa baax baax si ñu ko le mën am dafa fekk journalistes yi teel ngeen ngeen laaj di wut ay interview naam ñu ko sax bu hein, ma sœur lépp nak itam c'est pour la bonne cause ndax waajal bi moy laaj concentration ba nga xamni da ngay da ngay focus rek ci li nga naam yaa leen féete mag waaye gënuñu leen bëgg réew mi bu weesoo xëy na euh, biir bu xaw a gën a kii ak ay béjaaw ak ay at yu yokk ci suñu état civil gënuñu leen bëgg réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk te bu ñu lëngoowul jàppoowuñu amul lenn lu ñuy samp muy samp amul lenn lu ñuy taxawal mu taxaw donc yéen itam yéen itam gàcce ngaalaam feebar baa ngi law kooku moom nekkul sax réflexion ñu toog di xalaat ndax mi ngi mi ngi law mi ngi law law bu garaaw a garaaw a garaaw a garaaw te effort yi nga xam ni médecin yi euh, corps médical bi def nañ ko depuis nangami weer di xëy di ñu wax naka la feebar bi di di di di laloo yan mesure la ñu war a def pour arrêter ko wax dëgg yàlla defuñu ko ñi nga xam ni ñoo yor nguur gi itam war nañu mën a dooleel ñoonu gën a taxaw seen ay wet gën a dëgëral seen ay tere gën a wéy ci digleen leen diglu te di porter à notre connaissance ñooñee la ñuy wax mbir mi day am foo xam ni

budul dul terter yi nga xamni mom lañu la noté quand même ci ñetti wër yu mujj yi blessé euh, euh, infecté di gëna a bare faatu yi di gëna a kon jàpp naa ni bu fekkon coupe du monde la kon Sénégal jël na championnat bi bu yàgg mais on a dormi dañu nelaw nelaw ci ubi ubi bu gaaw ubi bo xamni ken organisé wu ken structuré wu ba nga xamanteni en fin de compte